car les citoyens ont désormais compris que les grands problèmes de leur vie ne sont plus régis par la politique. Quand la crédibilité d'un système est réduite, les réunions ayant pour objet la recherche de solutions essentielles portant sur la nation se tiennent autour d'une table de café et non plus à l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée aussi, mais l'Assemblée aussi, ne doit pas être ce haut lieu de contamination où les garés de parole rongent tous les parlementaires. Et si la démocratie n'est autre chose qu'une sorte de loup lâché au milieu des agneaux, le maniement des troupeaux devient alors la seule et une préoccupation du démocrate. Donc, considérons la démocratie comme un vaccin que l'on administre pour empêcher les virus politiques d'affecter toute la population. Pas de flics violeurs, pas de juges parano, pas de politiciens menteurs.

ñu ñëw génne xalaat yi yaakaar naa lu ko gën a rafet amul moo tax ñun dañuy préféré parce que ay xam nga bu ay campagne jotee coow day bare kenn du déglu kenn ku ne passion ngay demee te réew mi toll na foo xam ne ñu may nit ñu occasion ñu déglu ñi xalaat ñu wax ak ñoom farata la loolu taxoon ñu ñaanoon rek pour def journée d'étude bi ñu waxtaan parce que itam réew mi loolu rek la pouvoir bi parti yi ak société civile la ñoo ko séq kenn ku ne am na loo moom am na lu sa moroom moom naka lañ koy doxale nag ba mu am harmonie kenn ku ne xam sa responsabilité joué ko ba mu mët na mu war a mëtee kooku moo nekk ñun suñu préoccupation xam nga ni bu dee affaire ay élection pour rek nit ñu ñëw woteel la mais kooku ñun yomb nañu mais kooku ñun yomb nañu mais dañoo amee responsabilité pour rek ñëw ñu wooteel ñu pour nekk un simple président nous suñu responsabilité mooy fu ñu war pour que nit ñi xam li leen boole nit ñi xam fu ñuy teg seen tànk nit ñi mën responsabilité ngeen bal ma nak dama xawoon jaaxle ndax depuis ñu def pur ba léegi rencontre yi ngeen fi am yépp yeen parti politique yi invité wu len pur ñun nag invité nañ <laughs> sama mbokk nag moom aadama moom daan nañu associé ci niveau Moustarchidine wax dëgg yàlla dina ñuy associé waaye du dara waxin la rek du tax mukk ñu mere leen ndax bu dul parti yi yéen ñëpp kenn ku ne miin nañu la te ku nekk daan nga ànd ak ñun ci lu rafet lu kon nag loolu rek la jàpp yi ci des xëy na fàtte la waaye désormais rek ñu koy bàyyi xel du jotati ñun ñëpp ñu bokk ko yaakaar naa am na luñ ci mën nag waaw ah. ko defere rek rek la ñu woon ñu sànni ko ci ay kàddu ngeen bal ñu naaj na ñu ngi gërëm ñi fi teew yépp teewal fi parti yi. instruction bu ñu jot. mu lay wadi Wade dafa joxe instruction pour que lu ñuy indi daan indi fi bu ñu ko indi. sëriñ bi ne ko ñëpp xam nañ ko enregistrer dafa téré télévision bi pour bu mu jël gàmmu gi. wa mu téré pour ñu bañ indi escorte démb ma jënd escorte.

bis bu ma demee nag ci cadre pur ñu bëgg ci indi problème rek ñun ñëpp ñu taxu dem ci réew mi waaw maa ko wax damay engagé sama responsabilité bopp waaw nii rek la toll góor gi ni mu waxee bii loolu mooy cërëm am na loo xam ne du ca yegg man la ma xam-xam naa ko la muy wax ak man du ko wax ak kenn waaw ba tax na kon nag wax na leen fii bi xam nga nit ñi wax nañ ci lu ne commenté lu ne wax na leen fii bi ne Ablaye ñëw na ba mu jeex waxuñu politique culture la ñu wax wax na leen ko fii bi waaw ba tax na man na ko jëkk wax ñu waxtaan mu def analyse wax ma li ko jaaxal ci Ablaye

melokaan la nii la toll waaw kooku dama bëggoon mu leer pour yéen waaw boole mag Pape Diop wax ak moom ci téléphone ba noppi def ko haut-parleur mu kon bu suba mën na ñëw mu ni ko fu lay fek mu ni ko assemblée mu ni ko ban heure mu ni ko neuf heures fekk le lendemain du même jour bi richard Cheikh jox na ma rendez-vous à 11h. 9h moins 5 je na may à buntu pour jëm ci secrétariat bu Pape Diop. Ah, bi ma jubsee ci buntu bi gendarme bi seen à daal accueillir ma ak de femme am loo fi

ma ne ko yàlla xam noo ko moo ma ko wax ci téléphone président ngi toog mu ma newu fii de léegi na xaaral ma seet secrétaire bi ñu jëm seet ba xam fu mu nekk waaye di dem dellu si ñëw ni ma téléphoné nañ ko euh, ma nga mairie kon booy boo nga dem mairie fekki ko foofu ma jógee ci assemblée pour dem mairie bi ma ñëwee ma yem ci chefu protocole bi ñu ko Pape Diop moom ma rendez-vous assemblée la waxoon dem naa assemblée ñu ni ma mu ngi mairie mu ni ma waaw dafa nekk réunion kaay nga toog fii tuuti ñu ngi y avertir même dem ñu yóbbu ma ci salle d'attente bi ma toog di xaar boobu il était presque à 9h25. cinq toog di xaar di toog di xaar بأوزر مهمة مني مقبي قبال ما سوني شيخ أحمد تيجاني دف ما جوحران دبوا موزر دبوا ما جبريل جوحان راندبوا sëriñ Cheikh jox ma rendez-vous bu heure sëriñ Cheikh jotee ca lay dem. kon nag waxal Pape bu fekkee ni mënuma gis rek mu ma dem ci bu la ñu mën a gisee li ma xaaral tuuti gis léegi daal di dem dem ma ma toog ba presque onze heures mooy taan ma daal di jóg jëm ci sama oto waa ji seen ma ma jëm cooto bi mu daw ñu ni waaw Mara foo jëm mun ko ah, li ma la wax léegi da nga ko gëmul mun ko dama am rendez-vous ci sëñ Cheikh mënatuma xaar waaye nag waxal ab Diop ni ko maa ngi koy xaar ci élection yi billahi wal kitab élection municipale yi jot ma ni njaboot gi dem leen seeti Khalifa Sall mu jeex mais gis nga am na koo xam ni boo ko sewalee rek yàlla sewal la mu tax bés mbokk mi ñëw wax Tanor Dieng keroog bi mu ñëwee di jaale ci soxna Sophie Mansour a ngi toog daf ni ma réew mii de ñi fi sañ a wax ci politique am légitimité sëriñ Cheikh ak yow lay doon waaw ñi wax ci politique am légitimité Serigne Cheikh ak yow lay doon nit ñi sédduñu leen ko histoire moo leen ko sédd looloo tax que bi serigne di wax ba tudd sama prison maître Madické glissé ma ben papier ma lire ko ma jëmmi prison bi neexul waye li expert la ni la nga nga

ni le régime, ni l'opposition. Khana Boudoul Moustarchidi Nessah du pur, je suis chef de parti. L'opposition bi seetlu wuñ ko masuñu def luñ ma invité. Assise nationale il m'a fi massa am. Mamadou Mbodj bu forum civil moo ma invité mais ñoom ah, tey nag courrier yaa ngi dàqe waaw ah. ne nañ ne leen sëriñ bi liggéeyam ñépp gis na ko ma ni kañ ñëpp laa wax yow wolof wax ne mbottu mboyo xaj xaar ko ca dala ha ñepp ngi laaj nak presse ba ngi bindu fu ne wa fu mustafa si ne fa ne won la nek ba legi waaye ba may wax kenn waxul ah wallaay wallaay wax na dëgg sama bàjjen nee na léegi la koy wax ñii ñi mu àndal fa tabarakallah wax na dëgg waaw wax naa fi lu ne dañoo mujj di def ay débat di ma saaga ma ni baax na yow nee woon duñu ko jariñoo léegi nag biñ ko bëggee jariñoo nag ñëw nañu waaye sëriñ Babacar Sy moo yónnee wax ma mat na huit mois

moo am benn mise au point Sénégal comme les leeg dañuy faral di wax te wax yi léeg-léeg seen borom dañ dul xam nu mu demee te mooy sama diggante ak Khalifa Sall di nga dégg ku naan daf dafa waxoon wàqet di nga gis ku ne ah dafa àndoon ak moom ba mu neex ko mu xëy beru te fekk ni mu deme dëgg dëgg dëgg nit ñi laajuñu ko dama toog bees cheikh bi ñëw ni ma dañu wax ni dafa am mbokk mu nekkoon ak Khalifa Sall ci prison bi mën naa tudd turam sax waaye la ca kanam moo tax duma bëgg a tudd tur bi mu ma daf ma soxla pour gis ma dafa am lu ko Khalifa Sall yóbbante ci man መርዕሰ-ጉባኤ mu am ku mu àndal ku nga xam ni bras droit la ci xalifa mu ñëw nii ma xalifa moo ma yóbbanti nee na d'abord mu ngi lay jaale góor gi nee na li mu nekk prison yépp yëgul woon ni ci prison la nekk lu dul bis bi mu dégloo rajo ñu tàgg Serigne keroog lay soog a sentir ni ci prison la nekk mu di la ko jaaleel ndax bu sañoon mu fekk ko ci biti foo taxaw mu taxaw faage bi ci des itam def lay ñaan ñëw ga nga ñëw ca conférence de presse ba ca mairie ba waxul ni doy na sëkk mi ëpp na ndax mënatuloo ko defal ca àdduna teraanga bu ëpp boobu mu di la ñaan nag sa responsabilité ni mu toll bu sañoon nga bàyyi nag li ci des ndax combat politik la ak bu juridique avocat yi féetewoo ko ak responsable lu parti mu di la ñaan rekk li nga ko defal mënutuloo ko defal lu ko ëpp yóbbante na ma ci Sëriñ Abdu ni naa ko waxal Sëriñ Abdu mu bal ko àq ndax dafa mel ni dafa jàpp ni dafa am lu mu ko waxoon te respecté ko te fekk na ni démarche yi demee moo waral mu nuru lool waaye weddiwul ndigalam mbokk mi toog ni ma wax naa loolu Serigne Abdou ba Serigne Abdou tontu na ma. ni ma xalifa day taxul sax ma miin ko lool waaye turu sëriñ Babacar bi mu yore moo taxoon ma ciy sonn bi fi Macky Sall ñëwee wax naa ci ak moom ni ko na ma ci tin ba Macky Sall dig na ma nee na ma lu ci man dana ko def loolu la ma mbokk mi wax ma yónni ndaw nag ci xalifa ne ko bu ngeen demee comme Serigne Abdou wax na loolu te nee na mu ngi ciy def démarche du jaaloo ci ci ñun mu mel ni dañuy xat-xatloo ak kon nag dañ ko bàyyi moom mu continuer ci démarche boobu mais ki ma yónni ñëw ni ma xalifa nee na yónniwul mbokk bi ma ne amatul benn tànk bu ma ciy mën a séqeeti ndax sëriñ Abdou impliqué wu na ba noppi te duma xëccoog moom lii moo waral sama silence bàyyi Serigne Abdou dox ko ci li mu wax nee na wax na ko i Sall mu ngi koy seq moom nag ku jàpp ni wax waxeet la wala leneen walla leneen demewul noonu waaw kon nag mise au boobu rek laa bëggoon def pour nit ñi jàppe ko noonu waaw. mun nga kon nag.

ma taxaw fiñ doon xaar Macky Sall ndeysaan avec le ministre de l'Intérieur benen nit fekkat ma fa ñew ni ma lu ma bëggoon rek ñaan la ci kanamu ministre bi nga may ma ma fexe ba maag moom ak yow ñu toog ndax dañ ko soxla ma ne ko incha allah ah ñu koy jamono may rek y' a pas de problème ndax am na fu nit di toll da koy. déchargé waaw ndax diis diis yi dafay ëpp waaw te am na ñu nga xam ni seen mbir lu mu woyof woyof woyof am na fu mu diisee waaw moo tax tabaarakallaahu e bu ñu fi jógee rek seet xëy na ci démarche yi nañuy soulager yu bare fexe it ba yu bari yu waroon compliqué ñu fexe ba trouver ko solution waye da fay bokk ci charte yi nga xam dina ko ñaan muy nit bo bëggé def ak mom da ngay bàyyi nitam nitam waaw waaw waaw lo jël nit nitam tëj ko ba noppi ni ñu and par force koku du yomb surtout ku day na khalifa sall ci ñun ta def di do serigne babacar si wa te li nit ñi fokk ni bolé ak mom té nak ba ñuy dem ci conférence de presse bi lolu mom mo gënon intéressé pour nit ñi lu ko ndax lolu mo gëna tax ma japp ko mooy loolu ma nettali ni société espagnole bi dañ ko proposer pour benn autorisation de construire ñu jox ma deux cent millions dama wax mbokk mi ma ko wax ni ko dafay am koo xam ni boo àndeek moom doo yàq liggéeyam ndax xaalis dama ca di ko rendre compte te ni ma boko ko nangu woon it boo ñëwee ci man man duma ko nangu parce que bëgguma lu leen tilimal bëgguma it lu leen gàkkal ma ni nag am nit bu la bàyyee xel ba foofu dafay jara jàpp man boobu rek moo tax ma jàpp ko waaw ndax nit bu la dee dawal nga xam ni kon am na fu mu la teg waaw loolu rek la mu mel ni nag am na yoo xam ni xëy na nit ñi ñoo xam qu'est-ce qui se passe même Macky Sall en personne xamuko parce que ñun fa ñuy jëlee ak ñom fa ñuy jëlee bokkul parce que affaire bi deug deug deug l'intersocialisme l'intersocialisme international ñoo am ay décisions yu ñu jël fas yéene surtout les pays d'Afrique ñu fexé ba parti socialiste ya fa nek

أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك لودول رك ñooñu tabarakallah ñun ñuy am element waaw di seet it naka lañ ciy mën a solution waaw bu ko defee kon nag te am na loo boko ne boo ko bëggee régler doo ko régler ci mbubbu sëriñ waaw loolu bëgg ñu dekkali pur sunu parti bopp bi waaw joxe naa ndigal pour ñu dekkali pur organiser waat ko mu nekk sunu parti lépp loo xam ni parti ko war a régler ñu régler ko ci boobu domaine loo xam nag wàllu diine la ñu dellu ko ci cadre daayira bi waaw incha allah boo defee ngeen bàyyi ko xel noonu ñu liggéey liggéey boo xam ni c'est uniquement pour réew mi war a dem ci kanam nag waaw nit ñi war ko mën jariñoo waaw kenn ku ci nekk ak domaine bala ja concerné waaw mu mel ni loolu rek laa ne woon ci jeexital bi ñu wax leen ko bu ko defee rek xay na ñu ko war a seq bu ñu jógee ñoom danañ ko waxtaanee waxtaan naa ceeg bokk yi wax naa leen qu'est-ce qu'il faut faire mi nekk ay doyen ci daayira bi

ni ma li góor gi waxoon ca foire ba ni médiateur nga war a doon mu ni ma c'est le moment ou jamais waaw man ma kon nag ba boo nga commencé di ci xalaat rek pour seet naka ngay defee médiation ba yi war a yéwan yéwan mënu ma ndax keneen mënu ko yew rek lay sa rôle waaw nga defe ne yooyu yëpp dinañ ci réfléchir luñ ci war a wax ak kilifa yi wax ko kilifa yi luñ ci war a waxante sunu biir ñu wax ko ci sunu biir luñ ci war a doxalit avec nos collaborateurs nos alliés ñu seq ko ak ñoom incha allah